waaw ma jàpp ni rek euh, lu doy waar la te euh, président Idriss Seck man li ma yaakaar mooy dafa war a toog noppalu. dafa war a jël retraite ah? dafa def comme euh, sama nijaay Moustapha Niass donc dem toog noppalu. Ah, c'est <laughs> si je pense parce que en fait euh, il faut qu'ils comprennent que aujourd'hui politique bi on doit faire ça autrement aujourd'hui comme euh, Babacar l'a tout à l'heure dafa am ay nouveau type d'hommes politiques yu nekk Sénégal ñoo xam ne ñoom beneen vision la ñu am ci politique mais pas euh, di dem di wax lii suba nga wax lële et puis ngeen ngay jéem a nas ay pexe di di. mais mais mais Macky Sall su euh, fekkee su dafa dem war a toog Macky Sall aussi dafa war a toog même génération la. bon je dirais euh, je dirais. Idi Idi trois ans xaw donc voilà. bon je dirais Idi euh, je pense que. dafa war a toog euh, bàyyi politique bi parce que li mu ñuy won chaque fois du doon loolu quoi et puis man li ma yaakaar sax mooy dafa bëgg euh, dafa bëgg dem ci beneen euh, comment dirais-je préparer. Mm-hmm. préparer ki nga xam ni peut-être mi ngi fay ñëw jiite réew bi après mu mën a ànd ak moom man loolu laa jàpp. soit mu nekk mais mais la politique aussi c'est des calculs hein. c'est ça je pense que moom faiseur de roi la quoi. mais je pense qu'il va finir qu'il va retraiter faiseur de voix aussi. da nga foog ne président Macky Sall dafay dem te euh, andi keneen. ba loolu je sais pas de toute manière war nañu gindi tamit ci li mu war a def euh, Babacar wax na ko léegi mhm. war nañu gindi parce que d'ailleurs suñu combat loolu la lu ñu mayul woon président Abdoulaye Wade je pense moom duñ ko ko may loolu c'est clair il faut que mu wax ni di clairement nii du def troisième mandat dégg nga te loolu warul sax nekk débat pour man indi problème Idriss Seck warul nekk débat ci réew mi parce que réew mi yaakaar naa toll na foo xam ni. Mhm. ak euh, coono bi nga xam ni askan wi am nañ ko ci wàllu dund bi ci wàllu santé ci wàllu éducation ci wàllu domaine yu bëri lépp na sax instant bi. Mhm. problème yooyu ñu waroon lijjanti que bàyyi diversion bi nga xam ni moom la ñu nekkee. nan nga apprécier interview bi parce que bon wax na interview bi mu def samedi dernier. Mhm. nan nga ko apprécier de façon il a dit l'essentiel wala bon il, non, à côté. en fait il il à côté quoi man je comprends pas parce que en fait ñoom instant bi li leen waroon gën a yitteel mooy problème yi nga xam ni askan wi am nañ ko mais pas nekk fii naan euh, naan je suis le comment dirais-je. le chef je suis le chef de l'opposition wax wax yu daanu saret yooyu man aussi dama yaakaar ne dafay essayer ay galaj quoi. Mm-hmm. wala dafa bëgg juste. Euh, mais justement nekkatul ci président Macky euh, ci opposition bi la nekk juste que opposition bi dafa am keneen ku fa nekk ba tax na kooku sax tontu na ko. non Ousmane Sonko. mënoo nekk ci ci parti au pouvoir ba pare xëy suba euh, un bon jour nga ni mois je suis le chef de l' opposition alors que yaa ngi ci parti au pouvoir. <laughs> loolu du wax wax gu normal quoi. moi je pense que dafa war a bu baax euh, boppam. Hmm. Euh, bàyyi gàllank yi muy essayé aussi quoi. d' accord xam ni intéressé wul en fait.